delluwaat ci ñi nga xam se ne ñenn ci eh, réewu jullit ji dégg nañ ñi nga xam se jot nañ cee yëkkati àddu ci mooy ku ci mel ne eh, réew bu Maroc ak réew bi nga xam se ne moo di réewu Turquie waaye suñu réew mi di Sénégal mu mel ne peuple bi ñoo génn di wane seenu naqar ci li nga xam se ne eh, laal nañ ko ci jullit yi waaye déggagul suñu njiitu réew wax ci loolu tamit ban jàngat nga ci daal amee yow waaw loolu mooy man damaa xamul lu ko ci teex waaye wax ko ci war na wax ci moom war na ko mm-hmm. sa suma ci moom waaye ginnaaw maa ngi koy gis ci jàkka yi maa ngi koy gis ci jumaa yi di ko gis muy yor alxuraan di ko gis muy nuyu suñ kilifa yi ñu naan ab bi la nangam ak nangam wax ci war na ko ndax tey de bu fekkoon ne dañ ne ku lib julli dee comme moom ab julli la kon moom ci ñuy faat la war a bokk tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko ñu ne sa mbokk man nañ ko dimbale ci bu tooñee waaye buñ buñ ko tooñee nuñ koy dimbalee bu tooñee nuñ koy dimbalee maanaam dimbalee sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee mu ne waaw bu too buñ ko tooñee ne néewal ko doole mën nañ koo dimbale waaye bu tooñee nuñ koy dimbalee ñu ne ko yaa tooñ ginnaaw sab xarit la moom bu Macron nekkee ab xaritam wala mu nekk kilifa wala mu am luñ bokk na xam ne tooñ na te bu dee kilifaam boobu jàmm moom mii du mën a am jàmm ndax gis nga lii ñuy wax ni économie yi bu amee problème daanu ñun dañ koy yëg te moom moo jiite réew mi dana gën ci moom moom kenn du ko gën a métti ci moom kon nag sa kilifa bu bu tooñee da nga naan ko ah neexul ba neexul yaa xay sa juum nga loola poussé ci nga di ko wax waroo ko wax sa yoon nekku ci dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak bul ko tooñee ginnaaw yaay dajeeg moom yaay toogandoo ak moom yaay waxandoo ak moom tooñ na l'islam du caaxaan surtout yow réew mi nga jiite 95 pour cent di ay jullit yow ci sa bopp nga représenté na jullit laa sa gouvernement la ci ëpp lépp ñu ne ay jullit lañu ñeneen ay taalibe lañ ñu ngi jàng alxuraan bu nemee ci jàkka yi bu korte jotee da nga bu julli jotee it da nga gis sàppe yi bu ne bisu événement jot na da ngay gis ñu bu ñëwee Touba wala dëkk buñ dem dañ fay toog bu ajjuma jotee ñu julli ci jàkkate image yaa ngi fi kon ñooñu ay jullit lañu la ñu wax ndax jullit moom yonent bi salaam salaam nit ki bu waxee ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah ku ko rey rey jullit ku ko lor lor jullit kon ginnaaw seere nga ne yow jullit nga yaa ngi tudd yàlla yaa ngi jullit jàkk yi lii mooy wëy maanaam nguur lu mu yàgg-yàgg day jeex te sëñ Tuubaa nee na woon Euh, boo xamoon lii ñëw ci sa kaw kanam law kunta tuurinu maa yati amaamaka min hawlin wa min sakaratin kulla iranin la ma shagalta bi dunia la baqa alaha cay boo xamoon lii ñëw ci sa kanam bis dana ñëw yàlla xameewul son excellence xameewul roi sangam xameewul chef nangam xameewul dara bis dana ñëw machine yëpp tiim la duñu gis sa bopp bis dana ñëw appareil yëpp tiim la docteur yëpp tiim la duñu gis dara sa roogi di rocc ko te doo ci man dara ñu takk say tàkk takk say loxo suul loolu nag ku ko fàttalikuwut diggante bu gàttu àdduna jërul saggane rasulullahi ah. rasulullahi du ku nuy foyee